jàngale naa ko sax fu bëri xaatimu Suleymaan cosaanu Suleymaan ngay xam ba pare yonente yàlla Suleymaan doom la woon ci Daawuda yonente yàlla Daawud yonente yàlla Daawud dafa amoon ak nguur. amoon ak nguur. nguur nguur waaw. Ah, ab buur la woon. ba pare nekk ab yonent dafa am benn bis mu am kum ñaar ñu doon àtte kenn ki dafa yoroon ay tool kenn ki yor ak jur. ka yor jur ga nag jur ga lekk mbay ma ñu indi ko ci daawut alayhi salaam daawud ne kon ki moom jur gi na ko jox ki moom mbay mi noonu leen àttee woon suleymaan ne moom de bu doon moom dana ko àttee neneen ba ci mm. daawuda jotee laaj ko mu ne ko bu doon man de ki moom mbay mi damay jël jur gi jox ko mu yor ko am at la cay génne ca meew ak la cay jur la jur gi jur ci diggante bi lépp moo koy moom waaye nag kee day dem defariwaat tool ya su demee ba mel na meloon mu ñëw delloo si waat ko ak juróom mu joxaat ko ay toolam daawuda ànd ak moom ci atte booba loolu la alquran di wax ne fahamnaha suleyman wa kullan aataynaa xukman wa xilma saqarna maa daawuda al jibal defal defal naa leen ñoom ñaar ñëpp ak xereñteef ci àtte waaye nag bii paa moom suleyman laa jox dëgg waaw fahmu bi dégg-dégg bi suleyman laa ko fahamnaha suleyman loolu kon dafay firndeel ne lu wér a ngi noonu ci foofu la tàmbulee daawud nag di tàmbule di gëstu ci suleymaan ci la ko suñ borom bind ab leetar kaste ko ne ko leetar bii question yi ci nekk su ko suleymaan tontoo na nga xam ne moom moo lay doon mu nekk fukki laaj ak ñett mu dajale mbooloom dëkk ba mépp ña fa nekkoon ay boroom xam-xam ak ay jaamukati yàlla bañ dajee mu daal di koy tàmbuleel laaj ya ba ci njëkk da koo laaj ana li gën a jege doomu aadama doomu aadama lan moo ko gën a jege mu ne ko ak dee. dee ne ko lan moo ko gën sori mu ne ko li ko faat ci addunaam li mu ba pare ci adduna loolu moom saye démbam waaw loolu démbam macha moo gën a yomb mu ne ko lan moo gën a wéttaliku ci dooma ci ci ci ak ci mbir yi mu ne ko jëmm ju am ak roo mu laaj ko lu ci gën a wéet mu ne ko jëmm ju ñàkk ak roo mu laaj ko lan moo gën a bëri mu ne ko sikki sàkk mooy nit ñëpp li ëpp ci nit ñi liñ nekk amuñu ci yaqin amuñu ci kóolute mu ne ko kon lu gën a wéet mu ne ko yaqin moo gën a wéet mu laaj ko ñaari taxaw te duñ toog mu ne ko asamaan ak suuf mu laaj ko ñaari toog te duñ taxaw mu ne ko weer wi ak jant bi mu laaj ko itam ne ko lan moo xam ne bu ci mbir moo xam ne bu bu dalee nit bu bu dalee bu dalee nit ak rëccu mën na ko caa fekk gu metti mu ne ko ak mer jëfandikoo meram mu ne ko lan moo xam ne boo ko nit jëfandi jëfee dana am ak mujj gu rafet mu ne ko ak mer ànd akuk dal loolu moo nekkoon laaje mbooloo ma ne ko nag loolu doyuñu ndax sa baay la dañ lay laaj benn laaj ne ko nag lan mooy li gën ci nit nga xam ne su ko nit amee léppam baax su ko ñàkkee léppam bon mu ne leen xol xol Ah, bu xol ah, bi oustaz mu faral di wax. mooy xol bi ngay faral di jàngale waaw. <laughs> ay bu la jàpp moom moom <laughs> décortiqué boobu bàyyi ko moom. léegi lii mooy laaja. loolu mooy laaja. Mhm. léegi nag bi loolu jàllee. ba tey ñu ne ñoom loolu doyu leen. dañoo bëgg ba tey lu gën a leer ci seen bopp. ci la nag mun ne leen kon na ku ne indi aw yatam. ku nekk indi yat wi nga daan yor ñu samp ko ci sardin bi garde ko ñu xëy yatu Souleymane Bejj waa dëkk bi yëpp nag d'accord na Souleymane moo leen nangu nañ ak ndono kon mu doon mu doon Daawuda te fekkoon na mu am fukki doom ak ñeent te Souleymane mu gu ca woon. ci la Daawuda nag jóge ci la Souleymane nag jóge ci dëkk boobu dem ànd ak jabaram dem ci beneen dëkk pour toog fa pour comme su moo war a doon nguur gi dafa war a sori mu nekk fa nag ci ñàkk-ñàkk gu tar ci la ko soxna si ne ko nag est-ce que doo dem yaxantu ji ci la dem nag commencé di yaxantu. fu mu dem rek lu man loolu liggéey bu mu dem rek xam nga doomi buur lu muy man du mm, mm, mm. lu muy def rek du ko man ba mujj nag mu dem ci tefes ga di jàppale benn rëbbkat bu daan nappkat bu daan napp muy def saa wàccee mu jox ko ñaari jën wenn jën wa nag ca la fekk jaaro ba loolu indi jaaro yi waaw jaaro bi oustaz Modou Fall takk <laughs> mais benn jën boobu mu fekk jaar naka la ba xam ne xam ne euh, xam ni jaaro bi am na solo ci wàllum bay rek yooyu papi sumal jaaro lii li waral loolu itam <laughs> mhm. li waral li waral li waral itam mu xam ne mu xam ne jaaro bi am na solo bi mu takkee jaaro bi njanaaw yi ak lépp yépp dañoo ànd nangul ko ci lay wax na yaa ayuhan naas xolim naa mantixal astaxfirullah yaa ayuhan naas xolim fàtt naa aaya ba sax wa utiina min kulli shay'in wallahi noonu la demee sadaxallahu asim léegi nag ci la xam ne kon mu wax ne maanaam njanaaw yi ak yépp suñu borom dégtal na leen li ñuy wax léegi dégg na li njanaaw yi wax ak yépp lii nag moo indi xaati xaatimu Souleymane commencé ñu teg ci diir bu gàtt rek Daawuda daal di noppalu Souleymane nag ànd ak soxnaam ñibbi ci dëkk ba loolu moo ko def buur léegi nag jaaro boobu mu daan takk nag ci la ko lépp lépp lépp lépp daan wuyuse see rab yeeg jinne yeeg ñëpp ngelaw léeg lépp déggal ko loolu mooy xestab jaaro bi. mais est-ce bi jaaro bi ñëpp xam nañ ko. ah jaaro bi léeg-léeg nit ki ko jumte dama lay wax <laughs> xam nga jaaro bi dafa am nuñ koy dafa am ca. jaaro ba lépp lépp lépp lépp jaaro ba sax kenn xamu ko. lépp lépp jaaro ba léppi jaaro ba ndax jaaro ba la ca doonoon nguur la nit ñi xam waaye la ca nekkoon nubuwoo moom loolu yàllaa ko xam. yàllaa ko xam. la ca nekkoon nguur la nit ñi xam. waaye mhm. la ca nekkoon nubuwoo moom yàllaa xam. la nekkoon la nekkoon nubuwoo gi maanaam mooy. secret nu bu bi ah, rek mooy li ñuy tijji rek balaa ñuy teg per bi di ko ci tëj pour def ko ci loolu moom yàllaa ko xam mais est jaaro bi itam dafa am luñ naxsoon ci kaw luñ bindoon ci kaw mooy li ngay gis ñu naan mooy xaatimu Suleymaan jaaro bi itam wurus wu xonq la woon mais dooñu ko décortiquer ci table bi comme ça nga xam ne day gën a gaaw ah. waaw day gën a gaaw est-ce que duñ ko jëloo si parce que ñoom parfois ko denc ah, waaw sëñ bi yooyu secret faa ko bind nag mhm. parce que nag bisu ku wóolu sa xam-xam rek kay indi tableau. ah lay wax ah. Ah, tableau bi surtout au tableau dafa. Hmm. lim waaw lim ma expliqué gul moom d'accord naa ak moom. ñi am satisfaction bari nag bi bi hmm. moom nee na gëm sa waaye parce que man nag Moussa gisee nii. fi mu nii xaaj bi hmm. dafa leer question yi ma koy laaj. su ma ci convaincre woon. dama ko naan convaincre ma. ba pare yow nga leeral. ba pare yow nga leeral. ba pare ma leeral. kon parce que bari na lu ma koy laaj loo xam ne nag xam naa ko. kon au tableau ah, ah au tableau xaj na ci de <laughs> ah, ba tey saa yoon bëggee rek. ah oustaz au tableau nag. wala ñu question yi dem baaw yaa ngi léegi ah, léegi léegi léegi sëñ bi léegi foofu jaaro bi. dinaa ko leeral ci tableau bi après ak lim àndal. dina am dina am mais sëñ bi tey ngaa dem kon leeral jaaro bi parce que man jaaro bi ba léegi daal. <laughs> ah mais oustaz yow yi nga takk nii bu war a du yooyu. yii de marché HLM xaw ma Pikine. <laughs> Cheikh Al Khadim da ngaa boole gars yi ñëpp la bëgg yóbbu tableau def mm-hmm. daa mel ni ok. kon ñu njëkk a ah, ñu njëkk a leeral xaatimu Suleymaan mën na nekk. baax na siiw rek ni yow. <laughs> foo nga defoon benn xaatim daal xaatim jaaro bi ci nga nekk ah oustaz. waaw xaatim jaaro bi moom lay leeral. bismillah. oustaz da ngay bind bind bu mag comme ça nga xamante ne. Mhm. zoom dina mën a jël daal. waaw yàq nga turu turu xam-xam daal day leer. léegi un deux trois quatre cinq six lii mooy nax yi nga xam ne ñoo nekkoon ci kaw jaaro bi. Ah, lii moo nekkoon ci jaar bi waaw ah, lii mooy xaraf yi xard jabbaar sakkuur mbindam dafa rafet sax sawaab sair xabiir ak sakk yi 1 2 3 4 5 6 7. kon da ngay gis nax si 7 la kii set la. comprendre nga léegi nag lii mooy xaatim bi. un deux trois quatre cinq. <coughs>

pet la. waaw. mais nag sëriñ si ngay invité nag nii nga leen war di def la. ah au tableau jar na ko. ñuy jàngale lu leer nañ ñi bañ fee ah, nekk di wut buzz. ak naxaat. franchement. waaye nag kaay ma wala Oustaz mi xaritu Tunkara la de moom mi xaritu Tunkara la de sëñ bi. <laughs> Karajo demal seetaan benn. grand rendez nga may ñu élément bi moo Tunkara grand rendez-vous boobu neexoon na de <laughs> karaajo ah, waaw waaw si professeur bu fi nekkoon heure bi ma ngay wax leneen lu bokkul ak lii heureusement bu Oustaz Modou Fall ngi fi léegi lii mooy lii mooy xaatim bi gis nga ko li nga def caw ci kaw moom nga répété ci suuf. waaw mais day dafa am lu muy duggee. fardu jabbaar boo xoolee da ngay gis ne bayt bu nekk. doom kii bu nekk dafay am dafay am dafay am mm. juróom-ñaari juróom-ñaari. dina ñëw au tableau de. léegi nag nii la lii mooy. lii mooy lii mooy xaatimu xaatimu Souleymane bi. Kande kanamam dina ñëw au tableau. nga léegi nag dinaa la wax après dama lay wax ñaata rawxaan la am ak ñaata jinne la am. Mm. loolu après su ma toogee expliqué la ko. <laughs> ah Oustaz wax waxoon ni nag waxoon ni yow tamit bi waxoon nii rek sëñ bi yow tamit da ñuy bañ a wax yëpp de ah. <laughs> Oustaz yow tamit Oustaz laaj ko lépp yow tamit. yii man kay bii sëñ bi dama ko <laughs> mooy xaatimu mooy xaatimu mooy bi. Mhm. wax naa la li nekk ci kaw te mooy fard jabar sakkoor sawaab sahiru xabiru ak sakki yi ñooy tur yàlla yi. léegi dafa am nag loo xam ne ñooy malaayka yi ko yi àndoon ak moom. te mooy rawxa yaa ilu jabra yaa ilu samsa yaa ilu miika ilu darxa yaa ilu xaana yaa ak kashfa yaa ilu juróom-ñaar lañ ñoomit it juróom-ñaari malaayika lañ mhm. ànd itam juróom-ñaari jinne te junne yooyu mooy junne may maymuna mi ngay dégg ñu ko daan wax ci ci ah, école bi seen école mashab ci la bokk marata euh, buruxaan samharosin abiyat juróom-ñaari turi junne lañ. junne jooju kam moo ko doon wax waaye Ndiaye Dibi waaye ñooñu xamuñu lan mooy samharosin junne yooyu ay junne ah, yu àndoon ak yonante yàlla Souleymane lañ kiiwu njaay bi waaye junne yu àndoon ak yonante yàlla mata ir Souleymane lañ te junne yu ci bëri sax isant yi nekkatuñ ci kaw suuf ay waaw yónnee leen ma vidéo enseignement bi yow génne leen loolu masimatan ir ir waxoon na junne <laughs> am na ci junne yu bëri yoo xam ne faatu nañ dundatuñ sax bay bay bay bay mën a bay mën a bay mën a kii kon nag euh, ñu bari ñooy dégg ñuy wax rek lu ci bari xamuñu ko xam naa lu ëpp ci wàllu jinne ak rawaxaan dinañ ko gën a dinañ ko gën a leeral waaye daal lii moom mooy cosaanu xaatimu Suleymaan xëy na nag lépp lépp kenn mënu ko wàññi ci média waaye lii nag mooy li nga xam ne mooy